safara de ka fa jëm mooy koo xam ne dañ laa teg ci barab ngir lislaam dañ laa teg ci barab ngir ngay wax dëgg donte président dafa teew nga wax ko dëgg nga teggi fee yëpp dëgg ya waxoo ci tooñ gi muy tooñ waxoo ci insistis bi mu nekkee waxoo ci yàqu-yàqu yi muy def ci réew mi waxoo ci ay ñoñam bew giñ bew ci kaw askan wi jalgati gi ñuy jalgati ci kaw euh, moomeelu askan bi wugo ci ñooñu ñooñu ñooy dem sawara ak bépp imam boo xam ne da ngaa nafiq bépp imam boo xam ne taxawoo ngir jubbanti li nga xam ne mooy dëgg nga jubbanti ko mu ñëw ci dëgg bépp imam bu taxawewul lool day imam boobu moom leer na ma bu faatoo incha allahu sawar la jëm ab iliman suñ ko tegee ci barab pour muy wax dëgg mais soo fekkee ne yow dañ laa teg ci barab nga ñëw di dëgëral président di gaaruwaale ñeneen ña nga xam ne ñooy ay opposant wax dëgg man day jàkka jooja imam boobu du ma jull jiite ci àdduna kii may gis ci écran bi day sama dund du ma ci jiite benn waxtu incha